football Afrique bi gars yi doon jël teg ko ci loxob Sénégal Maroc mi doon bañ mujj na jébbalu léegi fële nga xam ne moo nekk ci Algérie stade euh, Nelson Mandela bi nga xam ne euh, daanaka histoire dong la moom mi nga xam ne mooy Nelson Mandela waaye histoire tamit euh, Sénégal yokkal na ko ca Sénégal tëj ci na équipe bii di Maroc ndax tëj ci daanaka du bit yu bari waaye match ba na mu demee ak marocain yi nga xam ne ña nga doon waajal pour yanu li nga xam ne mooy coupe bi waaye ñu ànd ak Amara Diouf fa ni métti toll nii euh, ci digg terrain bi euh, délégation Maroc bi euh, ñu ngi commencé xuloo ci seen biir ndax daanaka jafe-jafe yi nga xam ne dernière minute yi équipe bi nga xam ne mooy bu ne bu ne Sénégal yan nañ leen ko yan goo xam ne métti na lool match ba nag fi mu toll nii jeex na coupe ba gaa ya nga koy yanu a yi amatul len loo xam ne soxlaati nañ ko ci biir Afrique ndax lépp loo xam ne soxla woon nañ ko lépp loo xam ne ñu ngi ko doon xëccoo seen i mag seen i papa lépp gone yu ndaw yi fi mu toll nii tegal nañ leen ko ci palaatu jeeb lépp jeex na Sénégal moo nekk gone yi nga xam ni ñoo am lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar nga xam ni buteur ña ci am am na ci koo xam ne yaakaar naa ni euh, xam ngeen turoom bu baax a baax mu nekk Serigne Fallou euh, Diouf bi nga xam ni euh, Ndioufène bi bi ñu footballé lu toll ci juróom-ñett fukki minutes daanaka ab penalty la boo xam ni moom la rafañ ci biir kaay yi paraj la ko ca def benn dugg gars yi naan ndax danañ xool li ñuy def ba dugg série penalty bi ki nga xam ni moo nekk sawaare daal di fay jaaree rajaxe carte gi moom it ci benn mbëkk boo xam ni da koo mbëkk ba ca biir kaay kër gi fees ñaari bal ci benn loole nag la Maroc yi commencé euh, di ci dàqante euh, ci juróomi minute sëngam yi nga xam ni euh, daanaka desoon na ca match ba daqante boo xam ni daqante nan ba sonn waaye fu nu mujje mooy mujj nërmeelu mujj sëngeemu waaye nag Maroc ñu remercier leen ndax daanaka équipe lan yor boo xam ni bu am solo la équipe yor boo xam ni bu baax la ci li nga xam ni mooy compétition bi nga xam ni daj nañ ci lu ne waaye nag dafa fekk ni Sénégal dafa ñëwoon uniquement pour jël si li nga xam ni mooy coupe bi moom yëfam yi moom nag bu ñëwee di ko jël si dana métti yàgg-yàgg yàgg ah, da ngeen di tasaaroo